jaa ngeen jëf leen di ziarewaat bu baax di leen bal baaluwaat ak euh, gannaaw ba nu nekkee si suba gi euh, dem ci kilifa yu bari yi nga xam ne mën nañ ci lim le maire Malik Fall mën nañ ci lim le président Pa Abou Camara waaye mën nañ ci lim maître Ibrahima Gueye euh, dañu ñëw fi nak ci ki nga xam ne ne ñëpp xam nañ ko un homme social un homme au grand cœur un corps d'acier un corps d'or muy le président Ibrahima Maguette Tine nekk ki nga xam ne ne

ak kilifa yi xol ni ñuy euh, wala ni tabaské tabaske sen seen biir kër ak ni tabaské tabaske ak sen sympathisants yi bàyyi leen ñu lancer un message fort aux populations de Diourbel euh, rawatina li nga xam moy région de Diourbel rawatina li nga xam moy mooy musulman yi euh, Michel Ibrahima Bakatine ce site internet bi nga xam moy BM Media TV mi ngi lay nuyu di la dalal di la jaajëfal dalal bi ñu dalal ce kër ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Ina ma sant yàlla julli ci Rasulullah sallallahu alayhi di sallam di santaat bu wéré wéré wéré wér ci fekk gum na fekk ci tabaski gi di ñaan yalla yalla gën ko may ñukoy fekk di ñaanal julliti yalla yépp fu julit mëna nekk ñi ngi lay ñaanal sun borom ko taala di la ba ak te di balu ci ak di ñaanal yalla julli ci aduna sepp yalla am jàmm ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam di ñaanal uh, sama ñaari wajur yi nga xamni tay nii tey ñoo yàlla na leen yomal xiyaam gënal àddina di ñaanal sama soxna di ñaanal ñëpp di nuyu ñëpp di jaar ñëpp di leen ñaanal yéen ñii ñëw ci bis bu tedd bi euh, monsieur Tine euh, dañu gis ne euh, yow ku la xam la si wàllu social ku lay xaarit si social dana la fa fekk gis nañ li nga defoon si li nga xam ne moom mooy korité gi avant ñuy woor incha allah def na gis nañ aussi sociale yi nga defoon si taalibe yi def ay kaamil yu bari Euh, ñi nga xam ne ne danoo wàcc alxuraanu karim euh, ñu gis leen euh, nga xottil leen xottil seen i sëriñ daara ba pare teral leen may leen jox leen li nga xam ne ne moom la képp kuy jullit soxla muy kaamil alxuraan jox leen ay siyaada ay tàndarma ñu gis ne saa yu moment yu mel nii dikkee dañuy gis nga def ay social tabaski bi for leen si ay weew bay am na ñoo xam ne jëndal nga leen xar yóbbul leen ko guddi te kenn yëgu ko bëggoon ñu wax ko sax waaye nag nit su defee lu baax Euh, fu ñu ko war a waxee nañ ko waxee pour ñu ñu mel ne moom toppandoo ko ci jëf ju baax jooju loolu lan moo waral Ibrahima Mbacké Tine su ne ngay fekk nit bët xonkam nga dimbale ko te soo koy def doo ko def bëccëg mais guddi nga koy def te doo ko bëgg a communiquer. waaw xam nga suñu borom suñu borom tabaraka wa taala daa sàkk bëccëg sàkk guddi defal nu bëccëg defal nu guddi comme suñu borom nag mi nga xam ne moom lan nu fi nit ci moom la ñuy dellu léppam sutura la te nit looy def. fayeg yàlla ëpp fayeg doomu aadama lépp looy def te yàlla néewu ci jëru nga koy def man de ñaan naa yàlla sama dund gii lépp lu may def yàlla ci yàlla nekk te yàlla naa ko def ci sutura euh, dañuy ñëw rek euh, si wàllu euh, politique gis ngeen ne jamono yi da ngaa mel na ko xaw a reculer si wàllu politique bi malgré que vous étiez en voyage tukki woon nga waaye doonu gis naal sa yëngu-yëngu politique bareetu loolu lan lay expliquer waaw dama arrêté lépp Lama waxon lay waxat lepp lo xamne day yëngu ci politique pour le moment dama ko tek ci souf mais nak bayiwuma sama politique bu baas moy ànd ak suma wa suma suma suma wa koñ ak suma ñi nga xamne ne tamit ñoo ci Jurbel di waxtaan ak ñom di jëfënte ak ñom ci lool la nekk defar dal suma ginnaaw defar suma baas ak suma militant dal waye pour le moment moom yënguwuma ma ngi tok japp sama ngambur di diglu suma kilifa suma lepp ki nga xam ne nii tey lu ma nekk moom la lu ma bëgg a nekk moom la muy madame la présidente Aminata taal moom lay àndal ci moom laa nekk mais pour le moment politique gu Diourbel ni muy doxe dara doyuma ci damaa aj lépp nekkuma fenn damaa toog jàpp sama ngàmbur diglu suma leader Aminata Tall waaye tamit man continuer suma liggéey personnellement parce que li ma gis njaareem xawuma ko parce que njaareem ku ñëw ku bëgg a ku du ñëw yam ñëpp seen bopp dong la nekk nekkuñ ci kenn Euh, ñu gis ne da ngay gunge rek ñi nga xam ne mooy leader yi euh, rawatina ki nga xam ne mooy DG Moustapha Gueye jàppale nga ko woon bu baax a baax a baax si li nga xam ne mooy élection yi ñu jëm euh, rawatina ki nga xam ne mooy soxnaam di madame gay faat Diané ba tey yàlla def ko mu doon ministre lan moo nekk si diggante bi. dara nekku ci maanaam man damaa bokkut ak nit yoon yu bari dafa suma xarit la faatu sama rakk la mm. mais pour le moment moom laa leen dama ne lépp luy politique man Ibra teg naa suuf. parce que man lu ma wax dinaa ko def bëgg naa ñaan naa yàlla man ndax tey burul politique du dara suñu borom dimbali na ma man bu ma politiquee yàlla dimbali na ma bu ma politique yàlla dimbali na ma bi may politique am naa oto am naa kër am naa ngeboot te it fan ma tegoon teggi kuur kon politique du tax ñu jiiñ ma loo xam ne ni dunduma ko muy loo xam ne ni ñaar ma ñàkk wax dëgg mhm. wala ma ànd ak nit mu dig ma wala ma ànd ak nit mu digg ni ma àndal wala ma ànd ak nit mu bëgg a defal ma moo tax ba ma gisut lu ma xam te it maa ngi bëgg a dajal njaareem mhm. kur maram la présidente laa fi jëflanteel jëflante boo xam ne rafet na kur madame laa présidente man sama jëflante ak yow de awma ci lu ma neex te man amna no noo dal ne ko ndax man mm-hmm. yalla mm-hmm. fayda mm-hmm. la te ça. fayda mais dañu gis sa loyauté ak madame la présidente dafa melni yow si ma nga ben yott ngay toy Ibrahima fait. ko dégg fenn gis fenn madame la présidente arrêté wul politique sa way ba mu vous avez na tek yow da nga na tek la dee la waaw madame la présidente su continuer na tek ma continuer na parce que man duma nitu politique duma politique c'est madame la présidente moy suma couleur ñu cirque. loo xam ne ni moom ma gënal politique ci laa nag moom nag ci laa nag ak moom fulla jim am ak fayda jim am ak ngor gi mu toog su ma dee as gor damay ànd ak moom man góoratiwu ma déggoo li ma la wax dama ne man Ibra politique daf maa fekk may tedd am sama taraanga politique du tax ma ñu jéppi ma politique du tax ñu xas ma politique du tax ma wane ci benn loo xam ne day yàq ndax suñu borom teral na ma man bi may ñëw ci politique yàlla dimbali na ma bi ma bàyyee politique toog jàpp sama njàmbur nekk ci sama njaboot nekk ci sama base nekk ci samay nit ñi ma àndaloon gisagoo kenn nitu Ibrahima Mbacké Tine ñu ne la tey dem na fii wala dem na ca kaa wëral nag amul benn nit bu may àndal man koo xam ne gis nga ko ci benn langue politique ñi ma àndaloon ñi ngi toog di ma xaar man mii maa ngi toog di xaar madame la présidente heure bu bàyyee politique boobaa dinaa xam li may def mais heure bu madame la présidente toogee ba suskaa muy wax ci li mu nekk man Ibra politique ma demuma dikkuma dama na la mhm. man dama na ni nit ñi jàppe politique jàppe wu ko mhm. man politique dama ko jàppe diine jàppe ko ngor mhm. jàppe ko fulla jàppe ko di wax dëgg su ma ci nare loolu lépp nag naru cee am wala ku yaakaar ne maanaam nguur du doo ca jóge ndax nga sa bopp muy ku mën a nekk boo faloo ba yaakaar ne da ngaa war a jël nit ñi teg leen fenn ndax nga sa bopp ndax nit koo xam ne da ngaa fekk yàlla defar ko moom taraangaam sëñ bi kooku boo ko boo ko bëggee xool xool àndal moom ci ngor ak fulla ak mm-hmm. waaye bu bëggee ànd ak moom da ngay sonal sa bopp rek waaye Ibrahima da nga am ay sympathisant am ay euh, doomu aadama yoo xam ne dañ la bëgg am ay militants à la base euh, rawatina ñi nga xam ne ne euh, sont des personnes démunies maanaam ñi nga xam ne seen loxo jot seen ginnaaw ñooñu Ibrahima Mbacké Tine leen joxoñ ñoom suñu la joxoñee ne dañu bëgg nga poser sa candidat à la mairie parce que ba nga doonu dara ni nga xam amo ben poste de responsabilité yang ngi social yang ngi jàppale doomu adama yi te yalla rek tax te yaa ngi leen di à toute discrétion te kenn xamut tay ji est-ce que Ibrahima Mbacké amul intention wala tay say say sympathisant suñu la diggalee pour nga samp doon maire commune bi su ko défé nga gën leen mëna a euh, ndax yaa ngi leen si lu la sa doolé may euh, ndax lool di nga leen ko nangul parce que amna na ñu ñu koy dee ne Ibrahima Mbacké dafa melni bëggul dara ci politique waaw bëgg naa dara bëgguma dara mooy man sama njëkk ñaan yàlla mburaay gii ma yeewoo ñaan yàlla bokk ci dara am ci dara ba defar sama koñ mais man politique laa ne le man politique boo déggee ma ci wax politique yi ma gis nii goree di la lay indil ak ñàkk ba ma dema la depuis ba ma toogee ba nëgëni mhm. dafa mel ne sun borom dafa maa yokkal lépp sama kaw suuf mhm. politique maa koy jariñ wala jëriñu ma dama na la ca depuis dix ans yoo xam ne man ak madame la présidente ñoo àndoon ak président de la république ba fii may wax ak yow dama na la li ma ñàkk ci politique amul kenn ku takk ndombal tànk fii ci njaareem koo xam ne tey làmb nga sa poosu bopp def ko ci parti bi amul fal nga doon nga doon militant ku nu fal nga doon leader buñ la follee kenn dootul jaar sa kër dootoo dugg njaareem dootoo joxe social doo joxe dara mm-hmm. man nag foluwuma follikuwuma ba fii may wax ak yow amna lo xamne sama digënté sama borom la ci laay continuer dama koy at mu ne ma yok li may def mm-hmm. kon suñu borom moma mandu bopam mm-hmm. man du poste motax ma nek leader du poste motax nit ñi tok sama buntu kër mm-hmm. du poste motax fuma dem ñuma fay xaar man suñu borom tabaaraku wa taala ak lu bax li may def ak gor yi ma àndal bu fi may wax ak yow tay tayu ma xëyee damay yok may ko te fi ñu fi wacc gisuto kenn dañ leen ku fi wacc rek mere ñi nga andalon ndax ñoñu li andon ak yow ku fi foloo am ñu bees waaye ku yaakaar ne boo foloo am ñu bees yàlla def na dara am na nit ñoo xam ne nii de ñu mel ni man ak ñi ma àndal muy ñu mel ni ñoom aji seen Omar ñi nga am di njàng nga xam ne tey ñoom sama base yi leen ak sumay leaders yi nekk ci koñ bi ak ki maanaam muy madame la présidente ñun fëkk yóbbuwul ñun danoo gore dañuy gore ba dee ci dëgg la ñuy dox ci baax la ñuy dox ci jàmm yàlla la ñuy ci jullitu yàlla la ñuy dox ku yaakaar ne nag ñun da yaakaar ne danoo def ne maanaam ñun ab digaate wala postu wala kaay ma jox la nangam ndax nga sa bopp ndax ñun yàlla danoo defar ba defaru njëkkee jagoo euh, dañuy génn ci politique euh, ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, si julli bi tey ki nga xam ne moom mooy Serigne fàllu Mbacké bu sëñ Bachirou nekk rak sëñ Mountakha Bachir Mbacké yàlla na fi yàgg te wér jiite bi waaye ban jullee ba pare xubbaam mu indi ko consacré ko ci li nga xam ne moom mooy jàmm paix ak li nga xam ne moom mooy waajur yi ñuy sàmm ñi nga xam ne ñooy wax ak xale yi waaye xale yi ñu déggal waajuram rawatina li nga xam ne moom mooy mbiru jàmm da see gën a insister xubab gi nan nga ko jàngatee. sant yàlla bi amee kilifa yu mel ni ñoom ñu ay murit doyloo leen ñuy sunu lépp lu dul jàmm-jàmm ko gën hmm. képp ku wóor jàmm da ngaa demul ci jàmm koo mën a nekk ak foo mën a nekk ak loo mën a am loo yor te moo jàmm amoo dara hmm. dañuy ñaan ci sunu sëriñ su baax si ci barkab sëñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ne mooy sunu xalifa ci barkab sëñ alaaji mii ñu nekkal fii ci njaareem nga xam ne xam naa ko bu baax dama na lay nanu suñu mag ñi ñaanal yàlla def ci réew mi jàmm te jàmm fii am tey ñaanal xale yi ñëpp nekk ci jàmm am liggéey jaamu yàlla jariñ réew mi ndax it ki nga xam ne moo la war a remplacer yàlla na ko yàlla defal jàmm defal leen ay tawféex xale yi yàlla na leen yàlla wàññi defal leen réew mi am jàmm waaye nag nit bu amee lu ko naqari mën na koo xeex mais mën na ko xeex neneen

ñaanal sama ñaari waajur ñaanal waa Mbudaay ñaanal waa Njaareem ñaanal ñi nga xam ne ñoom laay àndal ñuy ay gor maa ngi koy ñaanal di jaar waa Njaareem gépp di baalu àq waa Njaareem gépp mais di baalu àq waa kër gu mag di baalu àq waa Mbudaay tey ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ne daal man Ibra maa ngi toog jàpp suma njàmbur anduma kenn déwuma ci kenn ba ma gis lu ma xam heure bu ñu gisee lu nga xam dinañ yëkkatu ko waat ba ngeen xam ne ñun jóg nañ pour politique mais pour le moment daal ñu ngi suñu base ñu ngi si ñu ngi war àndal tey it ñaan yàlla yàlla gën noo boole ñu gën a dem ci kanam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di leen sant yéen seen site bi yàlla na ko yàlla def télévision bu mag di leen ñaanal ci tabaski ñu fekkewaat ko ay déwén ba toogaat fi waxtaan ci dërëjey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jërë ngeen jëf